mooy sama maire nag di nuyu sama camarade sama collègue conseil yëpp di nuyu nos partenaires yi nekk ci saal bi man bi ma dégloo ñetti ñetti surtout ñetti mooy monsieur Cheikh Fall ak euh, monsieur Ndiaye ak kër Gueye la secretaire général damay ñëwaat tuuti rek presque ci li as di wax ni l'intercommunalité dafa dafa doon lu am solo maire yi war a toog waxtaan maire yi nag ñoom ñëpp ay politiciens lañu. peut-être que nous avons un passé récent ci le climat politique mais climat politique c'est mais ngi et je pense que c'est des élus qui ont été seen askan dañu am si parce que kenn deful kenn meer rek pour pour ces beaux yeux ces jolies vestes ces beaux grands bobos nous ñëw séminaire nous toog pendant deux jours nous toog après on ra ñu dem dans les tiroirs parce que comité suivi je pense que la première priorité parce que nous avons suivi rek dem parce que on ne doit pas perdre notre temps parce que perdre le temps c'est quoi ñu def mu comité de suivi ñu fi wax ñu après il faut que maire di parce que gis nañ ni problème financement am te ñi nga xamanteni ni dañuy financé kuréel bu nek buy financer dafa am lo xamanteni ni moy ay conditions conditions yi moy que il faut que mu nek des communes pour que ñoom ñu nangu financer ay nit nak ñu jubóowul waxtaanuñu ànduñu ñu dem di bokk lenn te pour les populations de Guédiaway c'est-à-dire les communes parce que da ngeen war a da am obligation wu toog di waxtaan parce que l'intercommunalité moo leen ko imposer concertation boobu am ay acteurs yo xamni intérêt mais il faut que obligation wu toog waxtan bi am parce que lolu moy indi solution yi comme que nous sommes tous conscients aujourd'hui que cette concertation est est évidente et que c'est une obligation qu'on a, yéen dañu leen sas ñun popula ñun sax nous des élus mais nous sommes aussi les représentants des populations qui vous élus parce que man tey jii ba man bay di balaay waxal parce que sama intérêt mooy Médina Gounass man luy jëmale Médina Gounass kanam dama am obligation ni ko maire lii def ko ak lu mën a tew voilà demal nga toog nga waxtaan ak Ahmed Aïdara su Ahmed Aïdara bëggul waxtaan ak yow sax yow si si teel waxtaan bi nga waxtaan ak moom su commencé di waxtaan yow dina waxtaan ak Khadija dina waxtaan ak Aminata dina waxtaan ak Racine et l'autre Morware parce que il faut mu am fu ko commencé parce que aussi ñu naan ay xaalis ñu ngi foofu effectivement parce que maire expliqué wu na léegi parce que bu nekkoon aussi une participation citoyenne nous citoyens, nous gestion nous participation citoyenne parce participation citoyenne cadre de concertation dans les communes nous nga xamante ni

normes yi normes yi ñun nous sommes tous des mais tey bu ñu xoolee dans les conseils municipal bi rek moo fa nekk ak benn groupe bi nga xam ne moo ko neex pour mu wax ñooñu pour ànd ak ñooñu di def mais ñeneen ñi si des ñëpp xamuñu lu xew si maire yi ñu si maire mais xamuñu lu fa xew ñoom ak ñi si biti ñoo fa yem il faut que nag nit ñi di partager suñu bëggee yëf yi dox suñu bëggee yëf yi dox.

condition bi mooy ngeen boole seen ay forces yi ngeen waxtaan nekk kenn pour que ngeen am mën am financement yi naka mairie def lan la xaar je vous remercie. merci beaucoup madame le maire euh, on va l'intégrer tu, tu as raison c'est une condition obligatoire pour réussir fi mu toll je donne la parole à Yatma Nia Yatma. ana Yatma. je vais pas te mettre sous pression. mais boo boo gàttaloon dina baax yow Fatou Kiné Niang sama yaay ñëw ma ko wax en ensuite ban si Siré <laughs> en tout cas ceux qui vont intervenir après bon réduire le temps de parole serait une bonne chose pour qu'on reste en fait dans les vraiment dans les délais Yatma tu as la parole voilà salaamaaleykum merci beaucoup monsieur le modérateur euh. ñu ngi nuyuwaat ñëpp di tàmbale ci nuyoo bi monsieur le maire di euh, nuyu les maires des la mairesse Khadija ak euh, monsieur le maire Beydi madame le maire Aminata Kanté euh, suñu maire aussi di ko remercier aussi ci taxaway ak euh, initiative yi nga xamni mu ngi koy jël ci commune bu Sam Notaire moi je pense que sama intervention bi ci ñëk moy ci financement bi nga xamni euh mairie bi daf ko war li outil wala boog li nga xamni daf fi nekk te ñu war ko ñoŋal ci walu prise en charge yi ak aussi charge financière yi Euh, je pense que dafa am li nga xam ne situation bi nga xam ne mu ngi fi nekk te aussi il faut que ñu wax ci il faut aussi ñu essayer trouver ci une solution situation bu njëkk bi mooy ñun ñëpp xam na ne maire bi dafa maire bi dafa am ay salarié yu ci liggéey euh, s'il vous plaît bi dafa am ay charges salariés yoo xam ne ñu ngi koy supporté te ku ci nekk xam na ni actuellement yëf yi xaw na tar xaw na metti Moi, je pense que les maires, les maires des communes doivent se concerter avec la maire de, la, maire de la ville pour que nous essayions de trouver des solutions par rapport à cette situation. Solution bien qui proposée nous pour nous être concrète. Moi, les maires des communes payent. Parfois, ils ont besoin du personnel. Au besoin de nous occulter freine, une devons prise qui effectivement déjà c'est à la ville pare ñu am problème jël leen en charge effectivement boobu bu fekkee compétence yi nga xam ne soxla nañu ko te ñu war ko uti feneen nañ dem uti ci la ville pour diminuer un peu le personnel pour que charge salarié yi nga xam ne maire bi ñu ngi koy supporté bi mu nekk difficulté actuellement ci moom mu xaw a mën benen bi mi ngi concerné li nga xamné mo dem dellu ci wàllu euh, état civil bi moi je pense que dans notre commission on avait proposé que nañu dématérialiser état civil bi mais pour ce faire dafa nekk un processus processus bi mooy état civil bi papier yi fa nekk ay papier askan bi nga xam ne ñoom fal la te dafa nekk ay papier yu am solo yi nga xam ne dañ ko war a sauvegarder on avait proposé ñu mettre en place des armoires de rangement de haute qualité beneen bi mooy ñu rénover le bâtiment de l' état civil de telle sorte que ñi fay liggéey dina nekk ci condition yu tax ñu mën a préserver les papiers yi nga xam ne ñoo fa nekk au delà des des des des armoires de rangement yi nga xam ne war nañ ko fa def. beneen bi mooy bu ñu waxee ci digitalisation tey fi jamono ji toll je pense que conseiller wala adjoint maire bu am empêchement te ñëwul ci rencontre bi waroon na mën a am possibilité suivre les débats war a mën a participer joxe xalaatam ndax xëy na xalaat bii defar mën na am ci kooku lay jógee mais je pense que loolu pour ñu def ko il faut qu'on en place li nga xam ne moom mooy une digitalisation suffisante ticket boo xam ne dina permettre ki nekk Dakar war a mën a def intervention war a mën a proposer lépp li nga xam ne moom mooy defar ci travaux yi nga ne moom la ñu nekk bi ñu mujjee mooy euh, la gestion des déchets je pense que tey maire commune bu fi toog yabaloon nga ay nit fii Saly ñu ñëw participer à un séminaire ci Promojet Promojet boobu nag ñi nga xam ne mooy conseil yi fi ñëwoon je pense que ñu ngi parce que là le mercredi dernier on a fait une réunion départementale de l'ensemble des représentants qui nga xam ne participer du séminaire pour le suivi li ñu koy ñaan nag mooy travaux qui ñuy def bu ñu ci paree ba jébbal ko maire yi ba rencontré leen nañ ñu dundale pour que ñu mën gérer les déchets de Guédiawaye parce que sale balit bi aussi ay stratégie moo koy je pense que des poubelles sont en train d'être distribués par la par le projet pour l'ensemble des communes. Là, pour il faut que nous ait parce qu'on est en train de suivre les choses. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a enregistré les propositions. La parole est à Fatou Kinenya. Après vous parlez maire Absafan. Fatou Kine. Salam alaikum. Je suis le maire de la ville. suis le maire de la ville.

ci mairie mais en général le département de d'une manière générale la ville elle est connue Euh, amna, mairie des day dem financement surtout pour les femmes ndax jusqu'à présent actuellement, mais par exemple un programme euh, dans la région de Thiès nous devons intervenir de au temps bi nga xam ne Michael Jean moom moo fa nekkoon comme secretaire général euh, AFD aussi dinañuy intervenir parce que du financement boo xam ne ki ne ñaa mën na dem lever ko mais commune Sam Notaire wala commune Golf Sud wala le le euh, commune kii euh, la mairie ville mën na dem wax ne sama jigéen ñi dañu am ay problème par rapport ak financement na ngeen leen jàppale parce que dañu bëgg dans le développement te bu boobaa financement collectif lay doon mais bu ñëwee ci maire bi moom dina ko organiser loo xam ne non seulement dana développer maireem ndax dinañ ni jigéen ñi dinañ jàpp ne maire euh, maire bi sax financement la fekk derrière financement boobu euh, euh, OIF e moo nekk ci ginnaaw wala AFD. wala même euh, ambassade par exemple ambassade des États-Unis les les dinañ intervenir ci yenn ay Oxfam parce que Oxfam comme bi ñu ko réunir rek léegi dafa am ci intervenir am na temps ñu ngi nekkoon Pikine ci inondation yeeg yëpp di ci mais en même temps parce que ku nekk xam na ne dëgg la dindi inondation baax na wut bërëb bu fajukaay mais bu nit ki inondewul euh, am fu mu fajoo te amul lu mu lekkit ci faju lay dëkk te lolu développement endogène mom mokoy def mais développement endogène yoy il faut maire yi tamit gunge ñu ci mom moy amna lo xamné man mënu ko lever mais Aminata Kanté mën na am bu jógoon négocier ko da koy négocier au nom de toute la commune euh, euh, de sa Notaire ainsi ñu ñaan aussi euh, vraiment dañuy sante Ameth diko ñaanal euh, li nga xamné mom la def lu rëy la. ndax euh, li kii euh, jëkk wax li mu wax moo am solo am nañ kanam yoo xam ne dañ leen doon seen géejawaay mais suñu xam ne sax am na lu ñu symboliser ci commune wala lu ñu symboliser ci ville bi te ñaari fan ñu fi nekk tax na ñu def ay approche xam ku nekk say compétence nga xam ne bu ñu dajee dinañ mën a waxtaan ëllëg pour am fuñu jëmele jëmale mm. légui nak nag loolu dina jaadu ngeen créer cadre de concertation cadre de suivi et concertation bu leen permettre yi fi jëlee nan dañ koy pérenniser ba nga xamné ne dina nekk lo xamné ne cas pratique dañu wax nak ci wàllu environnement parce que ñun day fàttu boo ñun kii ne boo accéléré dina ci financement dañuy insister trop mm. defe naa bi ma paree waa eaux bi interpellé na ma mm-hmm. wax naa ko dem xëy déggu ñuko mais dama leen di wax ne